maa ngi leen di ñaanal jàmm di ñaan yàlla sunu borom sama kàddu fekk leen ci yéen ñëpp nga xam ne yéen a ngi seetaan film bi képp ku koy seetaan waaye man fan yi moom li ma metti moom mooy li ngeen ko tëju moom maa ngi wax dëgg yàlla concentré wu nañ ci ba nga xam ne bu jour bi mu waree am duñ dañu bàyyi suñ yëpp ne ci télé bi wala ñu ne ci téléphone bi kon nag léegi bu ngeen ko waree te tegu leen ko rek moom dañuy am lu ñu metti nag kon nag di leen ko teg yéen tam bu leen ko manqué ci benn bis jour bi ngeen ko war a teg heure bi yëpp bu leen si changé te dara ndax nit ñi concentré wu nañ si ba pare bàyyi seen xel bu baax a baax su ngeen di defee nag tey ngeen teg ko ëllëg bu ngeen ko teg nit ñi dañuy dem ba neen ko jàpp woon danañ lu bari dañ si xaw a kon nag ñoo ngi jégglu bu baax a baax sama kàddu laa waxee rek ak képp koy seetaan ndax bu sañoon moom bis ne da ngeen koy teg heure bi mu war am tam bu ngeen si changé dara xëy na nag lan dara moo tax ngeen def ko waaye ku ne sañ ngaa wax li nga bëgg daal waaye jërë ngeen jëf